lislaam a ngi Cheikh Bamba mooy ki ko donnu tey ngir mooy ki ko taylu ba ku ne jot ci tey riddal ilaahi alal xaadim di ki yàlla may wax leen jërëjëf Sëriñ Tuuba sa jëf na ko yàlla fay